ngir gëna mëna jot ay vidéo xibaar abonnel ci chaîne youtube bu caaroy info tv nga daal di bëss li nga xamni mo di cloche bi ngir mëna jot yoy les notification Uh, liñ fi wax mooy dëgg mooy li boo gisee ñu tànn Modou Gueye tey mu ànd ak ñun jiite ñu parce que président dafa gis ci moom loo xam ne lu am fayda la mooy lan mooy li ñu ci moom ñun waa comité scientifique jàngat bi ñu jàngat ci moom mooy biñ ci paree dañu xam que candidat yu am yëpp biir Djidah Thiaroye Kaw c'est le meilleur candidat donc c'est le meilleur profil qu'on a pour cette commune là pour dem doxantu nank gagner commune bi lolu gis nañ ko parce que lolu nek na ci feeñ na ci jangam feeñ na ci yarom feeñ na ci baxam feeñ na ci tabem feeñ na ci meuna nek ak nit ñi donc lolu ku ko gis da ngay xam ni que candidat bi nga am c'est le meilleur candidat rax ci doli bu ñuy wax euh, bu ñu génné ci lolu di wax yenn opportunité la am pour ku mel ni Modou Gueye moy bu ñu amé chance am un haut cadre de l'administration sénégalaise mu nangu summeeku dugg ci politique bi parce que bari na administrateur yoo xam ne yi nekkuñ ci politique moom mu dang mu nangu dugg ci politique jàppale su defee loolu am na opportunité yoo xam ne mën na ko indil Djidda Thiaroye Kaw mën na ko indil département de Pikine mën na ko indil Sénégal parce que ay fonction permettre na mu am ay relation partenariat yoo xam ne bi ci Sénégal ak ci biti yoo xam ne mën na ko indil Djidda donc loolu yëpp njëriñ kese la donc suñu gisee koo xam ne kii amal nañ njëriñ xale la président tànn ko ñun si ñëpp suñu wareef mooy ñu accompagner ko ñun nag tey bu ñu fi toogee di accompagner moo dëggee dañ ciy am kontaan trop muy man di Omar Sow di Sophie Ndiaye di Mama Diop di euh, di Malal Diallo di Baawaar di ñeneen nag ñeneen ñun ñu nag ci parti bi yëpp parce que taxawaay bi ngeen comprendre taxawaay bi mooy taxawaayu lan mooy président tey su fi nekkoon nekkoon biir jëde caaree kaw

donc yaakaar naa ne am na lu bëri yoo xam ne mën nañ ko indi ci élection yi en tout cas li nga xamante ne ni ñu ngi koy wax mooy que ne ñun ñi nga xam ñoo ne société civile ñun ñi nga xam ne mouvement lu nekk dañ ko war a mën a def pour indi ko contribuer ci li nga xamante ne mooy la victoire du 23 janvier 2022 donc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di tëral ñëpp nag di ñaan ñëpp ñu mën a nag ci liggéey bi à partir de maintenant. asalaamaaleykum mbokki Touba Pikine ay nu maan ak li wër. Nous am bu la à l'occasion de cet événement de sargal dédié au plus beau, au plus jeune, au plus élégant et au plus solidaire de tous les candidats jamais connus dans l'histoire de directeur je parle de monsieur Mamadou Gueye vous présenter encore son bob, Moussa que membre de la coalition Benno élire le président Mamadou Gueye pour que mu nekk le maire de la commune de Djidé Thiaroye oh may leeral ndax ne sais pas yenn man nag APR bëggoon naa mu l'air aussi bokkuma Benno Bokk Yaakaar bëggoon aussi mais Mamadou Gueye d'avoir un projet politique

tey ci tàkkusaan gi ak timis gi man dama kontaan lu tax ma kontaan dañoo ñëw ba buntu këru Modou Gueye ñu riig fi lii nga xam ne sargal bi nga xam ne moom lañ ko defal Mamadou Gueye le gentil Mamadou Gueye le sociable Mamadou Gueye le le sportif ma ne bu bés ba incha avec son ballon il va attaquer Cheikh dribbler Salam dribbler euh, Gaynde et met le ballon au fond, au fond des filets. Ah, Donc, comme un bon footballeur, il va dribbler tout le monde, attaquer tout le monde, les dribbler et mettre son ballon au fond des filets, c'est-à-dire être élu le 23 janvier 2022, Inch'Allah, maire de Djibé chaîne YouTube Info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu les notification